جعفر جعفر بن جنة أدنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دفع واخ صحابين لن اصنعوا لآل جعفر طعاما دفر لن آل جعفر لن لك تقل لن لن لن دخن يوم أمن يتاي سخلا صدق سن دقن تتطم كموي نقر واخ نك بو نك سن باي سن كيراي نغو كونك لغا خاني ما خوتي بير سنغال te mooy nit de ñu daal di rey teg ay xar rey ay nag kon ay nag daal di dendale ay cin ci buntu kër gi daldi taal gan ñi ñëw ñu indi boisson yi daf ko xawaare boo sàgganee mu ngoog ñii di yedd ñii di fanaan ñii ganale boo sàgganee moom ay boisson boo sàgganee sax mu am mayab xaalis am sax ab may xawaar lañ koy def loolu ni ñëpp xam ne lu xaraam la bidaa la lu bon la te itam lu mat a bàyyi la te itam yonent bi nee na kullu bidaatin dalaala وكل ضلالة في النار يعني بدا بوغي سانكو تلا سانكو تك بروم بنار جهنم كون بو كوتي بان بيدا كوتي بان نار جهنم سو دي جالي تي بو دمي حتى بو генن ديك بي بو دمي فغاي جالي بو فا ليك بو فا نان بو فا توك يوم ني جالي ايتام لي نيت كي تيري موي بو بو بو داجيك بو سولي بو نوبي بول دم موكو دي توك دي توك دي خار فور ني جال دمال ليغي بودي دا nga yoron bitik dem ca bu dee da ngaa yoroon am njàngale dem ca bu dee da ngaa yoroon ay tool wala jur di sàmmi demal koo dajal nag mën na la mën na la mën na laa wax baati njaal waaye dem toog yendoo toog fanaanee toog gan ñi ñëw mbooloo mi ne tirim Sénégal gépp daje ñëpp ànd ci ay bidaa benn borom xam-xam waxut mu mel ne Seydina Muhammad waxut mu mel ne téere diine ji nekku fi mu mel ne Buxaari yi nekku fi mu mel ne Muslim nekku fi mu mel ne zaadul maad ibnu qayim nekku fi ñun ñëpp ñu ànd fàttali yàlla wax ndax àdduna uqsimu lakum billahi alladi la ilaha illa huwa adduna si day jeex téere ma ko gën a xam yéen a ma gën a xam ne bàyyi njubug sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax topp ay aada wala topp ay bidda pertement la ci àdduna ci àllaaxira maa ngi woo sama bopp di leen woo képp kuñ ci jaaleeti bu mu toog di xaaru njaal na dem liggéeyi ku mu dajeel mën na koo jaale ku ko jaal ku ku ku ko jaal fekk na fekk euh, euh, kenn toogul ci ñoom ñaar bu nga demee sañu Haadi Tuure radiyallahu anhu ci fonk ga sunnaam téeréem bi mu bind ma nga tey wax naan boo demee di jaale ji yow miy jaale bu la joxee ab siis bu ca toog buñ la lalee lalalee basang bul toog taxawal wax baati njaal te wàññi ko dem sa yoon loolu sañu Haadi moom la bind ci téeréem bi bu ngeen ñëwee ma won leen ko ci mbindam bu ngeen demee ci fiqu sunna ngeen fekk ci saxaaba bu ñuy wax mu nett li waxi saxaaba bu ñuy wax jarir jarir nee na nun saxaaba yi dee ci jamono yonente bi sallallahu kër ga nit ka dee mbooloo daje fa mbooloo daje fa de ñun jooyoo leen ko jàppe woon ndaje bi kese kese mooy jooyoo te jooyoo li ci yonente bi wax sallallahu mooy ñi koy def wala xaraa dañ leen di solal ay tuuba yi safara kon nag ku ci bañ tuuba yi safara yawmal qiyaamati tuubal dem di jaala ji di fa lekk mbaa nga di tuubal toog di nangum njaal tuubal euh, rey ay nag di togg ay ceeb di wut ay boisson di xel ay gan ñuy yendu di fanaan di toog di wax sama nangam deg sama nangam ñi di jooy ñi di yëkkat ñi jaar fa loolu lépp ay biddaa yu bon dong la pexe seytaana dong la pour yóbbu nu naari jahannam dañuy ñàkk sunu sunu néew bi dem ñàkk sunu alal ñàkk sunu aljanna ñett yëpp lañuy ñuy ñàkk yal na yàlla jéggal kon boog njaala ngoog wax naa leen ni ñu koy defe toxalal naa leen ko mu jóge ci téere diina ji dem nañ seeti fiqu sunna téere bu sa ñaari fonkoon la woon ndaxte téere bu du ca wax dara lu dul da koy jéem a dëppale ak li Seydina Muhammad wax te day wax xadis bu wax fa mu jóge dem leen ci Zaadul Maad Seydina Ibnul Qayyim Seydina Ibnul Qayyim may borom xam-xam bi nga xam ne mboolem ngir yi rafetlu nañu xam-xamam te itam nangu nañu ay waxam ndax moom day askan ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci saadatuna asalafiya asuufiya ñoom ñëpp a ko nangu dam leen ci zaadul maat ngeen fekk te ni kenn du jaale di fa toog waaw yonte bi xamul woon loolu saxaaba yi xamu ko woon nañ ko bàyyi te itam gan ñi nekk ci biir faas la jamono ñin toll ndem am nay gan bu fekkee ay gan a ngi fi yu jaase woon nañu dem ñibbi nañu dem ñibbi nañu dem ñibbi ngir yàlla te bu fi kenn toog kuy jaale boo waxee baati njaal wëlbatikul ci saa si dem bu fa lekk bu fa naan lii moo ne ci téere yi mu ngoog ba ca ba ca topp gannaaw njaal mooy sarax sarax sarax nag am na ci sunna am na ci saxaaba yi ku yaayam gaañoon ku ñuy wax saat mu ne sayidna rasul sallallahu alayhi wa sallam man day sama yaay dafa gaañu ndax ma saraxal ko mu ne ko waaw mu ne ko xeeti sarax yi bu ci gën mu ne ko ndox ndox nun nag si ngeen ni ñuy saraxal bu ñuy saraxal daanu ci def ñaari bidda ñoo xam ne ñooy ñaari biddaa yu mag yi nga xam ne ay mbaar lañu yu yéen wax yenn xeeti biddaa yu bari ak yenn xeeti bon bon yu bari bu ngeen demee da ngeen ko fekk ci fiqu sunna da ngeen ko fekk ci mbindum Sëñ Haaji Ture moom bind ci téeram boobu ma nga tey ma nga tey ma nga tey métitlu mu nga ñaari biddaa yu mag yi benn bi mooy jimmi dajaloo gu fa nit ñiy dajaloo rey nag mu nga naan dañuy saraxal jiw ñaareel bi mooy jàpp gu ñu jàpp bis sarax bi naan bis sàngam lay doon te kat dañuy tànn seen bisi bopp ñetti fan wala juróom ñetti fan xaw ma juróom ñaar mu ngoog si ñaari moom ñeent fukki fan lay jooy nee na ñeent fukki bu bu bis bi nga xam ne mooy bis bi nit ki gaañoo si ñaar day wax ci téeram boobu nee bis bi nga xam ne bis mooy bis nit ki gaañoo nga gis mbooloo mi ñu dajaloo ca kër néew ba yendu fa waa néew ba au lieu ñu togg yóbbul leen waa ñoom ñooy rey ay nag daa def ay toog guddi joxe di joxe naan di joxe lekk muy ab bon bon di biddaa di ñaaw ñaaw boo amee ñeen fukki fan ñu ñeenteel ak ñeen fukki guddi ñu beesalaat kooti boo amee at ñu beesalaat kooti noonu la ko waxee ci téere ba am na ci ñun ñoo xam ne ñii dañ koy def boo amee ñetti fan ñu ne dañ koy saxal saxalaat mu ngoog bu amee wala ñu ne jut mu ngoog yooyu yëpp ay bidaa la yoo xam ne sa yàlla wàcciwu ko ci alquran sa borom yàlla sayidna muhammad jàngul ko ci sunnaam sallallahu alayhi wa sallam te bu dee fàttali yonent bi wax man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ku jëf-jëf joo xam ne ji dëppoo ak li nu indi dees la koy delloo te xanaa ku ne war a mooy yàlla ba mu def ki nekk ci taxawaayu dee ki dee bu la fàttaliwul yàlla da nga xam ne yow lee nga dee ki dee bu la fàttaliwul na yow mi sa kër gi dëkkoo fi mbokki julit yi xamu leen ne suñu kër yee moo xam ay tabax la moo xam ay ay ay baraak la moo xam ay néegi ñax dëkk nu fa wallahi dëkk nu fa kenn ku nekk ci ñun naaj na laaj boppam la muy dëkk ci kër ga ak la muy am ci ay at ci biir bàmmeelam lu ci ëpp lu ci ëpp soo ko dendalee moo xaw a mel ne yow ma demoon Ndakaaru am fa ñaari kër gée kër da nga fa am ñetti fan gée kër nag moom da nga fa paas lépp kër ngay am ñetti fan ni ko kër nga nar a paase dund lépp ni mu nar a gën a yàggee lu raw loolu la bàmmeel gën a yàggee li ngay dund ci kaw suuf xool leen ñi nga xam ne dundoon nañu ànd ak sayyidina rasul sallallahu alayhi wa sallam te Madina ak ca Makka am na ñu dund xëy na juróom benn fukki at ak nangam am ñu dund juróom-ñaar fukki at waaye dañoo dee gannaaw juróom-ñaar fukki at mbaa gannaaw téeméeri at gën jaabari ja dañoo dee ñu suul leen bañ leen suulee léegi junni at la ak ñeenti téeméeri at ak nangam ñu nekk ci bàmmeel kon ki nga xam ne këram téeméeri at la fa am bàmmeel mu am fa junni at ak ñeent téeméeri at moo jaa kon kër ga la dëkk wala bàmmeel ba la dëkk bàmmeel ba la dëkk yow mi am kër ndakaar ñaari kër ndakaaru genn kër gi ñetti fan nga fa nar a am te mooy këru këruk àdduna nga tabax gi ci nag moom sa dund lépp fa nga koy ne te mooy këruk àllaaxira nga bàmmeel sax da nga fay jaar jaar ndi àllaaxira mooy kër ga àjjana ba faw mbaa sawara ba faw la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow mi am ñaari kër yee nag genn gi moom ñetti fan nga fa nar a am gi ci des moom fas nga fa yéenee dund sa dund gi li ci des gi ngay am ñetti fan nga topp di defar rek di peinture di taaral di defar ay lampe di poche ay télévision ak i ventilateur di karo di peinture kër gi nga xam ne fa nga nar a dundi nag nga ba ko ak janax yaag kaña yaag jaani njàngoor yaag jiite xanaa yow da ngaa dof su ngay am ñetti fan yow xanaa xanaa seetlu woon ne balaa balaa ñetti fan yi sax balaa moo jeex balaa ngay àggale ba balaa ngay àggale peinture bi ak karo yi balaa ngay àggale lampe yi ngay poosé sax ñetti fan yi jeex nga dem li ngay def xaju fi adduna dara xaju fi sayyiduna rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa tëdd ci basan ku wow koŋ sayyidna amar ñëw su yent bi jóg di nuyoog moom sayyidna amar xool gis basan gi ni mu defee ay rëdd ci yaramu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax basang daa ñagas te ci matlab éponge te ci ci ci sax gu gu xaw a tax comme suñu basang yi ak kasarante goo xam ne gi bant yi daa dijj te daa dëgër ba mu marqué ci sàll wetu yonent bi sallallahu alayhi wa bëtam ci marqué yooyu di jooy di jooy yonent bi ne ko Omar la xew mbaa jàmm la mu ne ko mu ko dara dara damaa gis rek sama rag nga nekk ak dund bu bu dund bu xat bi nga nekk mu ne ko Omar. man lu ma ak adduna man lu ma ak àdduna adduna dama fee jaar di dem rek dëkkuma fi maa ngi mel ne ku doon ndox ba ak agsi ci ker nag noppal fa tuuti pour jàll adduna si dëkkunu fi kon nag kuy jàdd ndigali yàlla di ko jàdd di ko jàdd ba bisub dee ñëw sa mbokkum dee ñëw nga xam ne sa mbokk mi dem na waaye yaa ci topp nga war a ragal yàlla loola war laa fàttali alquran war laa fàttali sunna war laa fàttali yoonu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sarax kenn du ko jàppal bis kenn du ko jàppal bis kenn du ko yëgle ndegam dañ koo bëgg a def ne yonent bi daan def ak ay saxaabaam sarax mooy nga fab loo xam ne am na njëriñ jox ko ku ko soxla mu jëriñoo ko loolu mooy ngir yàlla yéen tuyaaba ja aji dem ci loolu mooy sarax saraxal nga fab loo xam ne am njëriñ nga jox ko koo xam ne boo ko ko joxee soxla ne ko te dina ko jëriñoo te jox ko ko ngir yàlla tiyaaba jangatey yaakaar nga yéene ko aji dem ji loolu mooy saraxal ab néew waaye saraxub ñetti fan saraxub juróom ñetti fan saraxub ñeent fukki guddi saraxub amoon na at loolu ay bidaax la téere yaa ngi koy jooy dem na seeti sa ñaari la mu bind dem seeti fiqu sunna dem seeti zaadul maat dem seeti téere sunna yi yëpp yal nu yàlla jéggal saad bi mu laajee yonent bi xeetu sadaxa yi bu ci gën sallallahu alayhi wa sallam ko ne ndox ndox la ko wax ndox demal nga def ab teen seetal dëkk boo xam ne mar nañu nga gasal leen ab teen saraxa ngoog bu baax seetal dëkk boo xam ne bii mar nañu te forage bi xawle la sori nga xëccil leen tiwo saraxa ngoog bu baax wala beneen beneen xeetu joxe ndox bu mu mën a doon nga fexe ba am ndox jox ko koo xam ne kii soxla na ko yonte bee ko tànn bi saad ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xeeti sarax yi bu ci gën néewu ko reel aw nag néewu ko wooteel am ndaje néewu ko toggal ay ceeb ki maafe ki bëgg tànn yaasa ku bëgg tànn ci bub ji nu ko loolu da ko ne ndox lu tax nuy bàyyi yonent bi tànn di def leneen waaw defal leneen sax ndax yonent bu ñëwul pour la force bu nekk ndox kon toggal ceeb waaye dama lu bon bon bon mbokk bu fa ay nit daje ndax ndaje moom dañ koo bañ toggal ceeb yónnee ko nañ ko bëgg a yónnee ci seen kër nañ doon rek ñoo xam ne amuñu lu ñu añee waaye togg ceeb goo xam ne gi da ngay woote mbooloo ñëw ñii jógee ndar ñii jógee ndakaaru ñii jógee Thiès jàng xëy fu ne ay nit jóge fa ñu yendu fa xawaare ah ngay yekk di dem ak ñëw loolu bon bon la boo xam ne bii dina jaa ngi koy jooy te benn sëriñ waxut benn borom xam-xam waxut ñëpp ànd na cel wallahi àdduna bi fi mu toll jóge fee gën ne fi wallahi àdduna bi ni mel léegi bu fekkee mënut a sàpp ko jóge fee gën ne fi yal nañu yàlla jéggal yal nañu yàlla musal kuy saraxe la nga nar a yàq ci ay nag def ko ab xaalis boog nga bàyyi ba guddi xanaa yàlla taxulaa jóg xanaa bëggoo ci tuyaaba sabal xaalis bàyyi ba guddi nga topp ay miskin nga joxeen ko ngir yàlla bu ko kenn xam tuyaaba da nga ne maa ngi koy yéeneel diw waaye rek faw nga faw nga nga mbumbaay faw nga woo mbooloo faw nga nga rey ay nag te boo ko deful kat léegi fi nu waroon a ragale yàlla ay aada ay aada nu ragal am na ci nit ñoo xam ne dañoo ragal aada yi dañuy defe ne daal loolu boo ko deful euh, néew bi daal moom jàdd nga yoon wi nga xam ne mooy aada maam ndax aada maam mooy lan aada dafa benn ana aada bu baax aada bu mos a baax ci adduna jàdd nga aada maam yi da ngay defe ne néew ba dem safara xana wala boog yow da ngay dee gànnaam xana bu néew bi génnee àdduna faw ñu nakkal ko nakku dugub bi suuna adduna fu mu tege ana téere ba ana sunna sa fu ko yonent moo defa sallallahu mu ko santaane faw nga nakkal ko nakku dugub bi suuna te dugub bi suuna lay doon de waaw loolu fu ñu ko teg fu ñu ko teg mbokki jullit yi man li ma man mooy dem ci téere yi sunna yi xoolal leen la sayidna muhammad daan def sallallahu alayhi wa sallam waxal leen ko ba mu leer leen ku nangu yaag sa borom ku gantu yaag sa borom ndax jottali naa saa borom yàlla seereel ma asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu